assalamu alaikum assalamu alaikum facebook good morning everybody good morning good morning good morning sénégal bàyyi nañ ci jàmm good morning sénégal good morning salaamaaleykum salaamaaleykum salaamaaleykum salaamaaleykum Assalamualaikum Senegal mbaa yeneen ci jàmm ñi leen di nuyu ah. yéen ñi njëkk a dugg ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay ah mais ku dugg rek nga partager vidéo bi ah ku dugg rek nga partager vidéo bi seen seen seen xarit seen frère seen. le défenseur euh, des droits l'activiste comme nous koy nga man dama euh, combattant de la liberté ok gars yi yéen ñu de a dafay laaj rek message bi comme ñoo ci campagne électorale te yalla def na ñun ay doomu sénégalais lañu yag ci xex bi trop nak yag ci xex bi trop parce que man mom lu nekk ñak na ko ci xex bi li tax ma genn pour def message bi nak pour ci wat sénégalais la ci wat len rek de siwaat bi mooy ñu xam fi ñu tàmbalee bu am na kenn ni yéen fi nekk nii vidéo la Facebook le jam après tout le monde va le partager hein xam everybody going to say it xam nga ba paré xam nga Sénégal moo ñu ñor ñun Sénégal kese man bok man Sénégal rek a ma ñor man man amul dara luma ñor ci Sénégal luddul jamm sénégalais lenn intéressé wu ma Sénégal lu jàmm sénégalais yi te maanaam weer yi ci ginnaaw weer yi ci ginnaaw yëpp dafa am dafa am fu ñu tolloon dafa am fu ñu tolloon fi mu toll nii tey mu am fu ñu toll te dëgg dëgg rek lay doon moo tax man Assane Diouf bi ñu demee ba toll ci jamono boo xamante ni dafa laaj pour ma mën a taxaw rek jàkkaarlook sénégalais yi sax ci dëgg kese dama créer mouvement bu ñuy wax dëggal suñu bopp dëggal suñu bopp te dëggal suñu bopp dafa am dafa am dafa am ay banqaas dafa am lu koy dafa am ay bànqaas bànqaas yu dëgër yoo xamante ni képp koo xamante ni sénégalais nga defe naa ne li la war a gën a ñor ci Sénégal mooy jàmmu sénégalais yépp parce que boo dëkkee sa biir kër waa kër gi amuñu jàmm doo am jàmm boo dëkkee ci koñ bi waa koñ bi amuñu jàmm doo am jàmm boo dëkkee ci quartier bi quartier bi amul jàmm doo am jàmm boo dëkkee ci raison bi wala ci biir réew mi réew mi amul jàmm yow munoo am jàmm munoo koo am te Sénégal dañu toll foo xamante ni defe naa ne dañuy naxante dañuy naxante te naxante baaxul am réew kenn du ko kenn du ken du taxaw taxawaayu naxante ci lu toll ne am réew surtout nak réew mu mel ne Sénégal réew moo xamante ni maam Alaaji Malick dafay def lépp pour rek lépp baax maam Borom Touba def fi lépp pour rek lépp baax Mam Limaamu Laay def fi lépp pour rek lépp baax maam Baye Niass maam bu kunta njaasaan ba ci suñu mbokk chrétiens yi jàngu bi ñuy xeex rek pour Sénégal baax Baay Faal Sénégal googu Sénégalu ñëpp la Sénégalu ñëpp la te dafa am luy am ci réew mi loo xamante ni man d'accorduma ko d'accorduma te duma ci mës a d'accord parce que man senegal rek moo ma intéressé te li ma intéressé ci Sénégal mooy li ma leen wax jàmm Sénégal jàmmu Sénégal leneen intéressé wu ma nag lu nit di wax wala kuy kuy jàmmu Sénégal ñu amoon mission mission bu dëgër di ci xeex pour Sénégal di yëngatu pour jàmmu Sénégal bu ñu demee ba toll fii ñu toll ñu ne ñun dañu bëgg wala am ñu taxaw ne ñoom dañoo bëgg yor senegal dañoo bëgg yor Sénégal mais fu ñu jaar rek coow dina fa am wala xeex am fa ba léegi ay dóorante balu fetal te ñun ñu amoon problème ak Macky sàll ñu amoon problème ak Macky sàll amuñu problème ak ben sénégalais mais ben président bu ñëwone tek ñu ay nattu tek ñu ay ciono xam nga ci walu institution yi ci walu justice ci walu jaay doole ñu am ak mom problème troisième mandat ñu am ak mom problème di xeex di xeex di xeex di xeex ba egg fi tay ak président Macky Sall mom momu xeexul ludul bëgg rek senegaal am jàmm mu indiwaat ñu mu indiwaat ñu ci lan la indiwaat nit bu wàccee yoon àdduna bi yëpp topp ko ne ko danga wàcc yoon nit bu defee lu dul dëgg àdduna bi yëpp topp ko ne ko da def lu dul dëgg nit buy jaay doole ñëpp ne ko dangay jaay doole mu dem ba wëlbatiku teggi loxoom teggi léppam pour jàmmi réewam ba yi fi 2021 ba fiñu tollu ni lepp mu dindi ko sànni ci mbalit mi dal di wat ñepp seeni droit lolu rek warna ye sénégalais yu bare bare nyukamne bari ñu xam Sénégal gi jam rek mo ñu ñor jam rek lañu wara dox te gis nga li am ci réew mi ni ah. li am ci réew mi ni yeen wa Sénégal lay waxal du deug du yoon te waruñu ko bàyyi muy continuer waruñu ko bàyyi muy continuer am réew dañ koy yor ci préparation sa kër sax sa kër sax boo koy yor da nga koy yor ci yoon sa njaboot boo leen yor da nga leen yor ci yoon xam nga li am réew kenn du ko fajee mer réew kenn du ko faje mer dal nañu ci Macky sàll dal nañu ci Macky sàll man daluma parce que musuma ànd ak Macky Sall te du ma ànd ak Macky Sall ilaa yow mi diini ak lu nit ñi mën a wax jamono yi damay yeewu sax ñu naan Assane Diouf Macky Sall ko man Macky Sall munul ci man un franc. munul ci man un franc li tax munul ci man un franc man maa ko joxul accès bu muy mëne ci man un joxuma ko accès boobu te ay nitam xam nañu sama njaboot xam nañu ma bëgg yenn sénégalais yi. yéen sénégalais yi laay waxal Baye Fall yi vidéo bi partagé leen ko mu dem ci àdduna bi yëpp yéen sénégalais yi laay waxal dafa am fu ñu tàmbalee ak Macky Sall traque des dafa am fu ñu tàmbalee ak Macky Sall fi ñu tàmbalee ak Macky sàll mi ngi tàmbalee ci Karim Meïssa Wade njabootu papa Ablaye Wade jaay doole dellu ci taxawu senegaal jaay doole dellu ci dellu ci ba ci Assane Diouf ñëw ci usmaan Sonko kooku dem ba dëpp dem ba dëpp armistice bi armistice bi man saaga nañ ma saaga bu nekk bi ma taxawee ne non na armistice bi dem xam nga li ma la wax sàll Sall munoo fay bakkan ñenn ñi naan noo waa ji xam nga waa ji dañ koo jox dara parce que Sénégal mooy réew moo xamante ni boo waxee dëgg boo waxee dëgg ñu jël dëgg sànni ci mbalit mi teg ay fen ak naaféq te man nekkuma ci loolu dama ne bu ngeen bëggee dëgg dëgg projet projet dañ koy teg ci taabal ji projet lu ñuy liggéey la projet kenn du ko faje ay mer te gis ngeen Sénégal Ousmane Sonko mooy Ousmane Sonko Bassirou Diomaye mooy Bassirou Diomaye Sonko du Diomaye Bassirou du usmaan nañ waxante dëgg nañu waxante dëgg ñu xam fi ñu jëm fan la man Assane Diouf Ousmane Sonko sama rakk la yàlla bay nañu jàmm bu nekkoon kàndidaa tey tey jii nii ak cër bi nga xamante ni moom la ko Sénégal jox ak xol bi nga xamante ni man am naa ko ci yëg-yëg ci sama réew mën naa dem ci urne yi voteel ko billaay wallaay barke barke xaadimul Moustapha damay dem ci irni yi voteel ko mais Sénégal pour lan pour lan ñun ñu wara fal président ci fajj mer pour lan Bassirou Diomaye parew sama rak la basirou Diomaye bi muy dem kaso man ak mom ño bokkon di teddendo central man ak moom ñoo bokk añandoo la ño bokk ndogondo parce que wéru koor la won yaa ngi dégg li ma la ñooy bokk tëdd mbuusu ndox ba mu doon njegenaayoo man Assane Diouf maa ko yónnee ñu indi ko ma jox ko ko mu njegenaayu ba niñ ko placé sous mandat dépôt mais yéen Bassirou Diomaye parce que Ousmane ko demul ngeen ne da koy fal président Bassirou Diomaye ak li fi xew yëpp diggante Casamance ak Ndakaaru kooku mooy dem taxaw ne day jël capital bi tuxal ko ci nu mu ko mënte waxee capital économique ak waree fa pour jox ko mais mais Sénégal ah Sénégal coow li dafay jaaroon coow li dafay jaaroon ñun dañoo fekke lépp coow li wallaahi dafay jaar ñu tam fi Khalifa Sall dem tam fi bugan gey dami bugan gey dani dem tam fi Karim wad dem tam fi ah, barthelemy Dias dem tam len ay traiteur ci ben combat personnel ben combat bo xamanteni combat personnel la won pour Ousmane Sonko ñun ñep ñu genn xex ko 2021 man mi ma genn fajar fajar la wax wallahi

woo jeunes yëpp na leen génn leen kuy bañ nooteel ci senegal génnal nga xeex lii képp kuy bañ nooteel ci senegal génnal nga xeex lii ñu xeexal ko komba personnel du woon combat politique ba muy dem fañ koy tuumaale tàgguwuma tàgguwul Karim Wade tàgguwul Barthélemy Diaz tàgguwul xalifa sàll tàgguwul tàgguwul tàgguwul kenn te sénégalais yëpp génn xeexal ko ñu nekk ci nekk ci histoire Mame Mbaye Niang ñëw mu dugalaat ñu ci ñuy xeex injustice ay doomu sénégalais dee ci tey fii ñu toll nii ay doomu sénégalais continuer di naqarlu li am ci réew mi di am lu ñuy jàmbat di am metit ñu bëgg a jël réew mi faje ko mer man Assane Diouf duma ko d'accord kumu neex waxal la neex man histoire dafa am lu ma wara bindal senegal ken du ko faje mer senegal ken du ko faje mer ma tok tej sama làmmiñ man mako wax kumu neex jëlal kumu nakari ya xam xolal démocratie hein ah. gis nga bo waré yor réew hein ah, da ngay am li ñuy tudde démocratie da ngay xam yow li nga moom xamali ma la ak li keneen ki moom comprendre nga li ma la wax mais pensée unique pensée unique tey li ma bëgg di nga ko bëgg par force fi may voté di nga fa voté par force soo fa votéwul par force wala bëggoo ko par force sa nangam taan ñun amuñu woon problème boobu ñun problème mu ay institution la ñu amoon même ba ñuy génn di xorom Macky Sall problème mu ay institution la ñu amoon tey bu Macky Sall taxawee dellu ginnaaw man Assane Diouf maa taxaw ne ko jaaraama monsieur le président parce que Macky Sall dafa ñëw fi mu gën a méttee mu wóor ko ne Sénégal mën na fee yëngatu plateforme pétrole yi tege plateforme gaz yi tege lépp tege xoolal am ñoo xamante ni dañ ne par force dinañ am wala bu ñu amul réew mi tàkk mu bàyyi lépp indi jàmm effacé lépp lu fi jaaroon deux mille vingt et an ba léegi waaw góore Macky Sall man Assane Diouf maa ko wax parce que man jàmm Sénégal rek moo ma intéressé sama yoon nag ci lu Macky Sall am ndeyam sama yoon nekku ci sama yoon ci lu muy joxe mais dëgg gi nga xamante ni dafa war a dox fii ci biir réew mi man dama cee am cër am ci wàll am ci njaboot am ci lépp war koo génne te dama koy génne te kenn mënu ci dara. billaay wallaay senegal senegal Basiiru mooy Joomaay Ousmane mooy Sonko. Sonko du mai, Ousmane du Basirou nañu waxante deug nañu waxante deug man ay saga sonoluma ta kuma ci dab ci mbedd mi di am wah wax dina deug sa lu leer lay wax kuma ci dab ci mbedd mi man sénégalais la xoolal di nga jël sama li mbaa ma jël sa li lu leer lay wax parce que sénégalais la fi pensée unique du fi amé bu dimanche wallahi billahi di ngeen dégg wala ngeen gis wala xolal surprise yu mag dina am bu dimanche ñun dañu tambali xex dañu tambali xex ay gor tambali ko Karim wad tambali ko Khalifa Sall tambali ko Barthélemy Dias tambali ko bugan gay dani tambali ko asan djouf tambali ko ñëpp tàmbali ku nekk xeex pour Sénégal kenn néewul Ousmane Sonko xeexul pour senegal kenn néewul Ousmane Sonko warul nekk président pour Sénégal bu ñëwoon dañuy dem ñun ñëpp àndandoo takk suñu ndigg xeexal ko comme niñ ko doon xeexale voteel ko mais dama ne leen Ousmane mooy Sonko Basirou mooy Diomaye Ousmane du Basirou Basirou mooy Diomaye Ousmane mooy Sonko Sonko du joomaay man maa ko wax man maa ko wax protéger nous notre pays le Sénégal let's protect our country we going to do everything to protect our country man lanceur d'alerte là damay lancer alerte tout le temps te lu bari lu am ci seen biir mën naa koo teg ci taabal ji barki sëñ bari lu am ci seen biir mën naa koo teg ci taabal bi xam naa lan mooy Pastef xam naa lan mooy usmaan Sonko xam naa lan mooy Basirou joomaay xam naa tamit lan mooy ex Pastef xam naa tamit lan mooy ñi ñuy wax ay reykatu nit lañu xam naa xam naa li ma xam bari na parce que maa ngi woon ci seen biir. maa ngi woon ci seen biir mais réew kenn du ko faje mer gaa réew kenn du ko faje mer barke yonent yàlla Muhammad histoire duma ko bindal man duma ma kenn nag ne la demal votel kii walla bul votel kële wala xam nga non non mais li nga xamante ni maa ko moom muy sama làmmiñ bii dinaa ci génne liy dëgg teg ko ci taabal ji sénégalais yëpp xam ko ngeen defe ne ngeen defe ne Senghor Senghor Léopold Sédar Senghor daf na woon dinaa téye nguur gi par force wala ñëpp dee wala sama yoon nekku ci wala yéen ñëpp di ngeen xalaat li ma xalaat wala sama yoon nekku ci ngeen defe ne Abdou juuf dafa defoon noonu ngeen defe ne papa Ablaye Wade bi muy jox nguur gi Macky Sall mënul woon téye nguur gi ne dee xolal du mujj fenn ngeen defe ne loolu mënul woon nekk mën na nekk ngeen defe ne Macky sàll ba tey dafa néew doole wala dafa am lu mu manqué pour xolal jafandu ci nguur gi par force ne duma ko bàyyi mën na nekk mais respecte ñu ñun ñi doon xeex respecté ñu ñun ñi nga xamante ni dañoo génnoon di xeex man du ma voteel Bassirou ragaluma ay saaga ragaluma kuma tam dëmm ragaluma ragaluma ragaluma lijjantiwuma sax parce que sénégalais laa buy nooyee fii ci biir senegal sama yoon ci APR tout sëf Amadou Ba mais duma ma voteel Bassirou Diomaye Faye xalaatuma ko duma jox kenn consigne de vote parce que fi ma taxawee la mais dinaa wax sénégalais yi ne leen xoolal candidat yu baax yi ñu ngi fi homme d'état yi ñu ngi fi ñi ngi ci biir kàndidaay yi dem leen ngeen topp leen ngeen gëstu lan lañu am ngeen gëstu naka la ñuy yore am réew <laughs> li wax dafa leer de li may wax ah, dafa leer naññ sama gars yi man à chaque fois nag dinaa toog wax dinaa gis ay nit di saaga dinaa gis maa ngi leen di gis de dinaa gis ay nit di wax lu ñu warta wax mais loolu day dëggal rek day dëggal di gën a dundal Assane Diouf pour muy gën di génn di wax parce que démocratie mooy yor am réew pensée unique li ma bëgg di nga ko bëgg par force fi may voter di nga fa voter par force boko ko deful man nangam tan wala bo deful li man yoy yëngalu de man yoy yëngalu barki Serigne Touba Mbacke yëngalu man buñ mënon ci man dara man deenaa wu yag <laughs> bu fekkoon ne xolal bu fekkoon ne yii ngeen di def ni mën na ci man dara deenaa bu yag kon Macky Sall suul na ma bu yag dem len ngeen def ni Assane Diouf defone ba ñu njëkkee taxaw buntu kër Ousmane Sonko man dama tuur sama deret mi ngi nii histoire moo ko bind histoire ah, moo ko bind kon ñi nga xamante ni xamuñu dara ci histoire Sénégal xamuñu sax koo ci toogaloon ne ko Abdou Diouf nan la nekk ba président ba nekk président mënu la ko wax parce que musuñu intéressé wu ci actualité ñi nga xamante ni tamit dañoo jël Pastef def ko fonds de commerce nit ñi nga xam ne dañoo jël Pastef def ko fonds de commerce nit ñi nga xam ne dañoo jël Pastef def ko fonds de vie jël Ousmane Sonko def ko fonds de commerce wala buzz di wër di fen rek yëngaluñ ma de. yang ma mana? ay yang yëngalu mana? Lalu mom moom xolal booy boo ngeen def ko yi man xolal duma bloqué du ah du saga saagante ak ben kolosaar buy nek sama bir life, manam ñëw fekk ma sama bir kër ma di waxtaan ak sama njabot, nga ñëw tok di saga, ah bafal lalu mau nyak ñàkk fayda loolu mooy ñàkk personnalité loolu mooy nit koo xamante ni amul dara ci yëg-yëgu àdduna parce que man Assane Diouf bërkaati démb nee nañ PDS la bërki démb ñu ne Pastef la démb ñu ne taxaw senegal la tey ñu ne APR la loolu mooy tekki na man maay Sénégal man man dëkkuma fenn fu dëgg gi nekk rek injustice je suis contre l'injustice man Assane Diouf <laughs> taalibe Serigne Fallou borom Baay Faal yi yegsi nañu yee ba may egsi egsi wu ba may takk samay dàll fekk na boobu yéen a ngi nelaw ba may jóg di exprimer wu boobu yéen a ngi wut lu ngeen des seen poos te booba maa nga woon United States of America biir Amérique laa nekkoon fa wut gën a neexee fa tax xolal goney tey yi di jël yoon bi di dem Nicaragua taxul ma def lenn wala ma bàyyi lenn lu dul jàkkaarloog sama askan di leen xeexal xalaatuma woon sama poos xalaatuma sama njaboot xalaatuma sama bopp mais sama réew man Assane Diouf Et toujours Assimé. yéen sénégalais yi am dégg a yéen sénégalais yi y a dem ci bureau de vote n'ai pas de problème avec Ousmane Sonko pas de problème ak Bassirou Diomaye pas de problème ak Macky Sall pas de problème avec Karim pas de problème avec Khalifa Sall de problème Je n'ai pas de problème avec Ken lu parce que man senegal la du ma ne nit ñi tey par force da xalaat li Assane Diouf xalaat waaye li Assane Diouf di xalaat te mu nekk dëgg dinaa ko jël teg ko ci taabal ji ku mu neex jëlal ku mu neexul sa affaire la waaye dama ne dama ne président kenn du ko jàngale école de président du ay diplôme de président ay ambition la kon am réew kenn du ko faje mer li ci des yéen sénégalais yéen a koy mottali ak seen xel li ci des ah yéen sénégalais yi yéen a koy mottili ak seen xel man duma ma voteel Bassirou Diomaye jotewuñu dara nag aw ma moom benn problème aw benn waa Pastef problème billaay wallaay du kenn ku yeewoo Pastef koo xamante ni man Assane Diouf am na ak yow problème bu dul fenkat yi fenkat yi moom lu mel ne ay ay Baara Ndiaye fenkat ay Mara Niass fenkat ñooñu nga xamante ni xolal xolal dañoo fen la fenoon yëpp ñëw tege ci taabal ji ñu bëgg koo fàtteloo nit ñi ba pare topp dëkk bi wër pour teggi tuuma déedéet man du fàtte man lépp laay denc du ma fàttale tant que maa ngi dund xolal dama leen di yóbbu vaar rek vaar vaar rek delloowaat leen ci seeni kàddu démb delloowaat leen ci seeni waxi démb delloowaat leen ci seeni feni démb ak seeni ngi démb loolu rek laa fi nekke lu waay am ci Assane Diouf nag teg ko ci taabal ji no problème voté pour le Sénégal. Votez pour le Sénégal. Votez pour conserver l'unité nationale des Sénégalais. L'unité. Madame Djamou Sénégal. affaire du par force affaire du buzz affaire de hein, du par force affaire du buzz affaire du view affaire un message message message même boudul ñun ak sama génération li qui ak li am bu amé samay dom wala samay dinañ papa waxon wala suñu votez pour le Sénégal votez pour le Sénégal fofu rek que yam ak maa ngi woon ci mbedd mi maa ngi liggéey fi mu toll nii duma nekk ci lenn loo xamante nii <laughs> day néewal doole Sénégal lenn nag duma ci nekk waaye am naa foo xamante nii falaa féete pour xeexal Sénégal parce que man ànduma ci buzz man ànduma ci buzz moo tax ma ànd ak Khalifa Sall ak Barthélemy Diaz xex teggi tuuma xex pour teggi tuuma da limay wax xam ngeen ko dañ newon Ousmane Sonko du dialogué Ousmane Sonko waxul Ousmane Sonko deful ye yeah, Barthélemy Diaz la Khalifa Sall la nangam nangam Ousmane Sonko mo genn ci kasso bi <laughs> après ay weer waa këram yépp taxaw naan dialogowul waxul xamul sax kenn yónneewul yónneewul demul ci kenn kenn demul ci moom nangam ak nangam mu génn na leen dialogue am na dialogue am na waaye déggoo amul ñun suñu yoon ci déggoo am na wala amul waaye comme lañ doon wax ne jaloog am na rek nit ñi naan ñii dañuy fen nit ñi naan ñii dañuy wut xalifa sàll génn fi kilifa homme d'état opposition bu senegal yàlla bindul ku ko ci gën a yaru xam nu muy waxe Khalifa Ababacar Sall homme d'état nga xamante ni moom institution yi laa ko tudde institution yi moom mooy institution yi parce que toujours da koy respecté Barthélemy Diaz man ak moom ñoo àndoon démb nekk géejawaay di campagne pour xeex pour les sénégalais xeex pour boole ñëpp njaago séeréer tukulóor jullit chrétien tout le monde ñooñu tam nañ leen fi ay dëmm te terewul waxtaan yaa ngi doon am waxtaan yi moo indi grâce bi ñi doon bañ grâce bi ah naan duñ ko vote voté temps tey ñoo ànd ak seen candidat di célébrer ñoo ànd ci folklore bi di fecc nañu waxante dëgg Sénégal dëgg rek moo yor am réew dëgg kese mooy yor am réew man Assane Diouf ci loolu rek laa nekk lu nit di wax nag kooku yow la concerné mais man man Asan, sante Diouf am sama du lii moma ko moma maa ko mooma ah. ah. bureau bi bureau numéro sept juróom-ñaari sëñ Fallou ci taalibe bi borom bai Fall yi le patron de mouvement dëggal suñu bopp man du ma voteel Bassirou Diomaye bu fekkee ne daa loolu tax na ngeen di saagaak wala ngeen wane seen réewande xoolal man du ma voteel Bassirou Diomaye parce que sama réew duma ko faje mer sama réew man du ko faje mer de te bu may taxaw damay taxaw ci dëgg kese sama yoon ci lu keneen di wax buñ demee ci ñàkk teggin nag ak réewande ak wane yee bari naa lu ma ci am de bari naa lu ma ci am li ma ci am kenn amu ko parce que may génn di ci joxe boobu kenn dencagu ci looy joxe reewande ñàkk teggin ah ak fit doon gaynde ak ñeme li ngay wax ak gëggu <laughs> wallahi bi may génn di ko joxe boobu kenn dencagul looy joxe man la Assane Diouf sama gaay yéen ñaar téeméeri nit ak lu topp yi fi nekkoon di seetaan yàlla na yàlla defal jàmm defal ko senegaal defal ko képp ku yeewoo Sénégal li nga xamante ni moo am importance mooy man Sénégal kese moo ma ñor Sénégal kese Sénégal gi ma bokk ak sénégalais yëpp du Sénégal gi ma bokk ak sama yaay wala sama papa. wala samay doom wala keneen Sénégal gi ma bokk ak ñëpp képp ku yeewoo Sénégal ba ci Amadou Ba candidat ba ci Macky sàll président du tee bu dëgg gi jotee kuñ ko war a wax rek dinañ la wax dëgg gi après ñu bàyyi li ci des leneen luy am wala leneen lu mënti am man sama yoon nekku ci lijjantiwuma ko lijjantiwuma lu ci nit di def lijjantiwuma lu ci nit di wax jàmm senegal mooma ma te du ma voté pour faj mer man li ma daloon dootuma musuma dal sax mais li daloon sama askan en 2012 parce que man voté wu ma Macky Sall <laughs> waa Amérique ñu ngi may dégg senegal gi itam ñu ngi may dégg Amérique la ma fekk 2012 ñu nekk ci campagne Barack Hussein Obama. 2012 ma boole ko di jël sama alal di ko yónnee fii xolal ay nit pour rek ñu dem xeexal papa Ablaye Wade parce que xam naa ne Macky sàll fa mu ñu jëmee ci ay wàllu nooteel président buy wax di màttu màttu biir lo xoolee di di neewi ma ne attention te fi ma nekkoon bërki démb ak bërkaati démb ba dem ba tekk samay dàll summi samay gants <laughs> ah jël xorom si weeraat fa ngeen toll tey kooku mooy Assane Diouf lanceur d'alerte à chaque fois rek damay lancer alerte man du ma votel Bassirou Diomaye te képp kuy protéger Sénégal di protéger jàmmu Sénégal senegal kese ñor la Sénégal kese ñor la dama nga tànn ci om d'État nga voté leen je ne voterai pas Bassirou Diomaye man Assane Diouf yàlla leen yàlla defal jàmm nag defal ko senegal yëpp defal ko defal ko kep ku yeewoo senegal man dama fekke demb 1971 la judd fekk na fi Senghor bi Senghor di joxe lengay di jox Abdou Diouf en 1980 xawma 83 Bob ma ngi dund bi Abdou Diouf di jox lengay papa Abdoulaye wad en 2000. j'avais vingt-neuf ans ñaar fukki at ak juróom-ñeent en 2001 ma jël avion ne cëpp Amérique liñ ma njëkk a jàngal mooy naka la nit di dunde ak askanam liñ ma njëkk a jàngal mooy naka la nit di defe loo xamante ni day jariñ askanam mais pas nu nit di def rek ba duggal ci posam dedet dedet bu doon loolu la xolal <laughs> ñi dem Nicaragua yëpp maa leen di recevoir mais man sama réew rek moo ma intéressé yàlla leen yàlla defal jàmm defal ko Sénégal defal ko mboolem julit sama gars dama doon toog rek pour jàllale message bi ñu xamné am réew kèn du ko faja mer dégg ah? lool rek mo doon sama sama sama waxtaan ak yeen keneen ko xamanteni am nga leneen lo xam ne la ñor nak xolal Facebook moma ah, da ngay dem rek nga cliquer direct après nga wax li nga bëgg wax mais awma jottu tontu kenn li ngeen bind ngi koy gis ah ay Ahmed Aïdara ak ay Diomaye ak ay Sonko ay ay ay ay lépp maa ngi koy gis mais man dama osé am sama làmmiñ taal sama caméra jënd sama connexion toog ci sama biir oto xoolal wax li nga xamante ni moom laa bëgg a wax te kenn mënu ci dara parce que sénégalais laa am droit ci exprimer wu am droit wax li ma ñor ci sama réew